jëf mbokk yi di amaat mbégte bu baax a baax a baax saa su ne di jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk ñu koy defee ak yéen di dalal ay ndaanaan waaye tey ñu toog ak ndaanaan boo xamante ni yaakaar naa ni sénégalais yi xam nañ ko min ko ci teraanga yi nga xamante ne saa su ne mu ngi ciy ànd ak ñoom di leen bégal à travers Morodi TV suñu frère la Ibnou Thiam te nag ñu dalal ko ci spécial tabaski bi comme ni ñu koy defee di toog ak ay ndaanaan waxtaan ak ñoom ci bés bi nga xamante ni tey bésu mbégte la xam naa du ñu wëyal suñu ay kàddu lu bëri dañu koy nuyu bàyyi xamante ne ñoo di mbokku internet yi Ibnu ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax ci disponibilité bi dina la déwénati di la bàyyi rek nga dekk mbokk yi. El Hadj fekkeel déwén. baal leen ma ak baal naa leen ak waa Sénégal ba. parce mhm. que déjà li ngeen def rek ndawul. Euh, lu toll bis bi nga xamante ni dafay xat. nga xam ne ñëpp leen yittewoo. Euh, ngeen déplacé wu. xam ne fi ma dëkk sax déjà rek dafa sori. <laughs> ngeen daw ñëw ba egg si sama kër. Mhm. ñoo ñu war a ànd bokk waxtaan wi. Mhm. loolu c'est c'est ça fait plaisir. Mhm. balaa ñuy tàmbali may nuyu les fidèles internautes de Sénégal Buzz 221. di nuyu waa Sénégal yëpp di leen wax ne leen ne ku ci nekk maa ngi lay fekk fi nga toog. Mhm. manaan la baal ma àq. Mhm. di leen baal àq. Mhm. te xam naa ne sax man moom. waaw maa maa yor àq gi yéen yore <laughs> loo leen ma tous man maa leen yoreel àq maa ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax a baax a baax. di leen wax euh, jërëjëf et dal leen ak jàmm. merci beaucoup ci kàddun yooyu am solo yooyu noonu jërëjëf te ngi dal ak jàmm waaye ni ñu koy waxee rek tey doon bés bu spécial boo xamante ne ci àdduna bésu mbégte la naka nga dundee tey tabaski waaw comme ni koy ñëpp di dundee ah. Uh-huh. waaw def yëfu kilifa. Uh-huh. Uh, ginnaaw bi ñu yàlla maye uh, gudd fan ak wér. Uh-huh. bañ fekke ko loolu mooy cant gu njëkk gi. biñ ci santee ba pare nga xamante ni lépp li nga war a def da ko war a def ak sa famille. je l'ai fait avec ma famille. et donc uh, jëndum xar. rendi waaw feetu. sañse <laughs> voilà nan nga ko doxalee waaw <laughs> mais à chaque fois dañu koy wax euh, jour tabaski bi mooy tabaski waaye préparation bi mooy tabaski naka ngeen dundee préparation bi daw bi ñëw beeg ak dëkk bi tool waaw man naturellement parce que je me disais que nii ñëpp xam nañ ne on est en de préparer le 22 oui et donc ñoo ngi woon ci tournage et donc euh, mënuñu woon nekk di def comme ni gars yi di def mhm. mais tey sa kër boo fa nekkee am euh, une dame Mhm. de faire boo xamante ni à ta place ma mun a toog sa place. Mhm. yow foo munti nekk sa xel day dal. mu damay jàpp ne toute l'organisation toutes les préparatifs. Mhm. a été faite euh, par. Euh, la grande dame bi nga xamante ni moom lañ bàyyi ci kër gi. moom laay woowee jigéen ci mën góor. et puis donc man dama ñëw rek. mottali mottali bi lan la. Eh. mooy gàddu buum indi xar ñëw teg. bi ma ñëwee fekk naa lépp pare. <laughs> ah loolu mbégte la loolu mbégte la mais tey euh, ci bés bi nga xamante ne aussi ba tey bésu mbégte la. Mhm. Euh, tabaski yi nga daan dund ak tabaski bi naka nga ko gisee changement bi. waaw damay wax ni rek euh, bés bu delloo ci bu delloo ci ci yow ci ak bés rek ak cant la. Mhm. waaw dañuy santaat man damay wax ne tabaski yëpp ay neex. waaye bu ren bi neex na parce que dafa am lu yokk ci jëmm ji. Mhm. muy lan mooy que ni am na benn personnage boo xam ne moo ci dugg mooy Ibnou. Mhm. nga xam ne daan nga sax def dara di passer inaperçu mais cette fois si mënatoo def dara loo xam ne da ngay passer inaperçu. Mhm. et donc tey kër gi da ngay gis ne jaabante bi bari na fii. xale yi ñëw tonton Ibnou la ñuy seet. et ça fait plaisir. donc loolu mooy mbégte bi nga xamante ni moom laa sampir. danaa tabaski tranquillement di passer inaperçu boo demee jumaa ji di julli dañuy xam ne sëñ Matar moo ñëw julli si mais cette fois ci da ngay ñëw ci jumaa ji di julli ñëpp di la xool ñëpp di la saafontoo ñëpp di bëgg nga nuyu leen ñëpp di bëgg nga wax ak ñoom loolu moo nekk sentiment de satisfaction bi nga xamante ni. Mhm. am naa ko mu nekkaat un plus et je me ko ni kon man bokk naa Sénégal. bokk nga Sénégal waaw euh, moment yooyu noonu lan nga yëg. waaw li nga yëg doo ko mën a expliquer parce que c'est des yoo xam ne doo ko mën parce que nit ñi. defuloo leen dara. Mhm. ba tax ñoom ñu bëgg la lu dul nga interpréter benn rôle rôle boobu noonu nga interpréter Sénégal yëpp adopté ko nga yow nga romb la ñu naan la yaay tax ñuy seetaan. Mhm. ñun yaa ñuy daaneel loolu. parfois nga jooy parce que mu nekk mag bu la koy wax. wala mu mhm. nekk sa moroomu maamaat boo xamante ni moo la koy wax ah yow ay ibnu man de yaa tax may seetaan parce que fa nga koy yóbbu la. donc yooyu nit mënu ko expliquer. parce que benn sensation la boo xamante ni sa biir xool rek la mën a nekk. Mhm. waaw nga koy yëg muy neex. ngay gëm na yoon te bokk nga ngay gëm na yoon ndekete yaa ngi bëggal sénégalais yi. Mhm. Euh, muy lu am solo loo xamante ne aussi mënul woon ñaaxu ñu partagé ko ak sénégalais ci kàddu yu am solo yooyu noonu waaye tey bës tabaski bi dafa nekk bés boo xamante ne xëy na war nañ ci mën a waxtaan di ci sottante xalaat mhm. tey euh, bëri na ñu am bëri na ñu amut. Euh, ñi nga xamante ne saa su rek suñu borom daf leen di xañ. yan kàddu nga leen di dénk parce que nekkul saa su ne rek la yàlla di jox doomu aadama. waaw mais. inna la man saabiriin la yàlla wax ci alxuraan. Mhm. yéen ñi mënul yéen ñi amul muñ leen ndax maa leen teg natt wi. Mhm. waaye doomu aadama day am fu muy toll foo xamante ni peut du comprendre exactement li ko dal yàlla moo ko teg. mun a jàpp ni sax nit a ko teg. Mhm. mun a jàpp ne peut-être leneen la keneen kii xool di jàpp ne daa yaafus wala di jàpp ne dafa amul jom. fekk ne lépp luy am ci kaw suuf la lépp luy dal doomu aadama bi yàlla moo koy teg yàlla nag mooy dogal te la muy dogal nag dañ ko xawar a nangu. Mm-hmm. waaw mais ñuy wax ne rek ne ñooñu nga xamante ni tey yàlla dogal na parce que man mënoon naa cee bokk. Mm-hmm. mënoon naa bokk ci ñi nga xamante ni dañuy tabaski muy metti seen boor lool waaye dañuy sant. comme ni ko yàlla di waxee laa in zakartum laa zidanakum mm-hmm. ñu santaat mu dolli ñu bu baax ci lim ñu defal ndax du suñu njàmbarte waaw Euh, daf ñoo boole rek ci ñi nga xamante ni rek tey jii nii ñoo ñoo ñoo ñoo yelloo loolu. Mhm. mu defal ñu ko waaye gënuñ ñi nga xamante ni ñoo ko ñàkk. ñu leen di wax rek ñu muñ te xam ne yàlla moo ko doxalee noonu. Mhm. waaye man de ci sama tabaski damaa yéene ñi nga xamante ni amuñu tabaski man bi may bi may bi may bi may rey. Mhm. noonu laa def. parce que amaana mënuma dem. jox leen. Mhm. wala ma fekk leen wala xaw ma leen pour mën a bokk ñoom tabaski bi. Mhm. mais ci sama kër yéene naa ñi nga xamante ni amuñu tabaski. Mhm. waaw man noonu laa doxalee. Euh, wax nga ko sànq waaye ci alxuraan dafa am leneen lu ñu yàlla wax ba sant ñu ko sax wala mu wax ñu ko. teguma benn bakkan lu dul lu mu àttan. laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaha ñu gis bés bi nit da ciy dundee noo xamante ne ba leneen ak leneen mën ko cee fekk ci benn fan. ñàkk gëm yàlla ak ñàkk xam li nga doon ak ñàkk jàng parce que. souvent dama koy wax ma ne ñun. Mm-hmm. suñ problème mooy. Euh, rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bi muy wax ak moom. Mm-hmm. neew ko xamil de. neew ko lii dana ko iqara. Mm-hmm. demal nga jàngi. donc ñun li ñu war a def mooy jàng pour xam suñu diine. maanaam boo jàngee ba xam sa diine lu bëri da koy comprendre. donc tey jii ni benn bés bu mu tax nga jaay sa leer. bu mu tax nga jaar sa dignité. dafa eh, am sama benn copain man su lay doon doon waxtaan. Mhm. bi tabaski bi desee ay ñaari fan. ñu ñuy wax fa la mbir yi toll mu ko amaguma xar. mu naan mhm. kaay ma am fu mu la mu lebal la xar ma ne ko tabaski kenn du ko leb maan. wallaay dëgg ma ne ko maan man su ma amul xar nii ma ne ko yàlla dafa dogal ma am soxna soo xamante nii barki Serigne Saliou. Mhm. su ma amul woon xar man gëm naa ni mën na maa suturaal ci sama ñàpp ko xar même bu dee dee jënd benn kilo ndawal. Mm-hmm. dina ko jënd ñëw lakk ko ci kër gi mu xeeñ comme ñëpp def ko te du xaawi sama sac mm-hmm. loolu mooy cant gi nga xamante ni dama koy njëkk a sant yàlla mm-hmm. barki sëriñ Saliou parce que noonu laa ko waxee ma la ko maan du ma ko leb waaw parce que yàlla teguñu loolu te tabaski kenn du ko leb mu a ma am na ñu ko xamul mais yow franchement boo yorul nii xar buñ ko gisoon ko la doon la ma ne ko bu ma gisoon ko ma doon lewal du ma ko leb mu ngi may dégg parce que xam naa ne dina dina dina bi. Mhm, mhm. noonu laa ko waxee. et donc li war a am day am parce que yàlla mi bind tabaski bépp père de famille bu war a am xar dina jël xar wu mat ko ba ci sa loxo jox la ko. bul jàpp ne nag yaa am sa 500000 wala yaa am sa 300000 wala yaa jënd sa xar yàlla moo la ko jox. Mhm. te boo defee loolu ba pare santal. te xam ne am na ñoo xamante ni ñu ngi koy wër. tere na leen ñu dugg seen biir kër am na ñoo xam ne ñu ngi ciy ñàkk seen sëy. am na ñoo xam ne ñoo ngi ciy dégg lu ne. ndax amuñu ab xar foofu laa bëggoon a wax parce que soxna su baax nekkul ñëpp la ko di yàlla di may. <laughs> ñu ngi ñaan yal na yàlla gën a yàggal seen ànd. waaye aussi dañuy gis léeg-léeg pression sociale bi ñenn ci soxna di teg seen i borom kër. alhamdulilah ba fay am ci meroo am ci ndax lan indiloo ma xar bu mag <laughs> joxoo ma cheveux ci benn bés. alhamdulilah rabbil alamin mhm. bi ma yàlla wàccee coono boobu bu dee coono la. <laughs> coono la di am ñu bu ma ko tegoon nit ma tegaw ko. Mhm. waaye yàlla dogal na ni ne ci soxna si ma dégg du ay cheveux lay jooy du ay mbasin lay jooy du ay dàll lay jooy ma jënd ko jox ko mu jël jënduma ko joxuma ko mu sant xam ne yoruma ko. une petite conseil pour les femmes. qui waaw nañ nañ nañ jàppale parce que yàlla bu la boolee ak nit ki. Mhm. daleen leen boole pour ngeen ànd. Euh, lan la euh, innal muminina iqwa la rasulillahi sallallahu mhm. alayhi wa sallam wax mhm. al muslimun aqul muslim mhm. maanaam daf ñoo boole à ñu doon ay complement dafa am lu ma manqué moom am lu mu mate ñu war ko jox jokkalante ku ci nekk mottali sa morom xam nga boo gisee ñu naan sëy day mottali jàmm yàlla mooy que y a yoo xam ne dafa nekk ci biir sëy yoo xam ne ca ca ca ca ndoxaan nga sax daawul feeñ daaw doo ko gis mais boo duggee ba ci biir sëy da ngay gis loole mm-hmm. léegi nag loolu nag nga war a ñëwul muñ nag. Mm-hmm. mooy combat bi c'est la geex loolu nga war a gagner parce que loolu mooy colère bi. Mm-hmm. parce que tey mën nga ci gis ne waa ji ci durant bi ne ànd am na loo xam ne waxu woon dëgg. mais tey jii ni dem nga ba as ngor dugg leen mooy ñu ni sëy mais yàlla moo ngi xaar nga suturaal ko. sutura moo ngi tàmbalee foofu nag ci biir néegu sëy parce que ci biir néegu sëy. am bëri lu fay xew. waaw léeg-léeg góor a koy ci biti. waxtaane ko mhm. léeg-léeg jigéen koy génn ci biti di ko waxtaanee waaye bis boo dalee ci soxna soo xamante ne du nettali la xew ci biir néegu séyam hmm. ak dasanteel góor yàlla boo xam ne du nettali li nekk ci biir néegu séyam hmm. yàlla rek doy na loolu loolu bu la neexee hmm. nga ne yàlla beral na la nàkka te man mun naa wax ne bokk naa ci ñi am soxna soo xamante ni euh, yàlla daf maa beral euh, du li mu toog jàkkaarloog man moo tax ma koy wax musuma wax ne ma tabaski bi jesner laa bëgg wala lii laa bëgg may xool lu ma neex ma jënd mhm. lenn rek laa xam ne moom moom laay jooy ci moom mooy kenn mënu ko defal surprise ci àddina <laughs> parce que lépp loo ko bëgg a jëndal moom foo nga woo ko <laughs> mhm. ne ko lii laa la bëgg a jëndal mu ne ndax neex na ko wala neex ko mhm. léegi nag gis nga loolu mooy complicité mbëggeel parce que nit ki boo leen demee ba bëggante ngay mën a comprendre li mu bëgg ak li muy bañ nga koy def munoo ko satisfaire à cent pour cent dëgg la munoo nekk une personne parfaite à cent pour cent ci moom ba moom ngay bëgg ci moom à cent pour cent parce que léeg-léeg mu tooñ ma léeg-léeg ma tooñ ko mhm. c'est vrai dafiy dafiy la ci ëpp lay tax ànd ba di neex mooy bis boo ko meree da ngay xool démb lu neex lam la defaloon mhm. parce que man gëm naa ne noonu lay dund ak man parce que bu ma ko tooñ léeg-léeg ma daan wax mhm. bul ci wax dara loo xamante ni day ñaaw parce que man bu fekkee man la. boo nee ma daa baaxoon. tey nga ñëwaat ne ma daa bon. Mm. mooy man je me pose la question ne kii may waxal kan la. dëgg la parce que mënoo wax ne nii la meloon démb. tey nga bëgg a ñëwaat ne nii la mel. Ah. moo tax j'aime pas les mm-hmm. et pourtant je vis dans la politique. Mm-hmm. parce que la politique mooy li nga xamante ni tey mun nga weddi sa bopp. Mm-hmm. ci forme bu la neex. waaye man dama naan li tax. parfois du ma mën a nekk c'est vrai politicien mooy bugguma wax deux fois. Mhm. waaw dafay bëgg li ma wax def ko. def ko <laughs> waaw macha allah mon frère Ibnou muy kàddu yu am solo yoo xamante ne xëy na mënul woon ñàkk ñu dooree ko waxtaan bi ndax euh, lépp rek jàngal la ak euh, leçon boo xamante ne askan bi ku ne mën na koo jëriñ. Mhm. jëriñu ci euh, ci noonu nag damay génn def parenthèse bu ndaw ñu taxaw ci li nga xamante ni nag mooy Babel ngeen indil ko Sénégalais mu doon loo xamante ni Sénégalais daal waaw affaire bi ëpp na leen doole de. waaw parce que Babel damay wax ne buñ ko wax Babel. Hmm. mais tey buñ ko waxee Babel am na askan boo xamante ni ñu ngi leen koy cëralee d' accord. waaw te damay bañ ñu ne bu buñ wax Babel ñoo ñu merama te fa laa bokk ndax ñooñu bala may sa laa. <laughs> Babel Demba Thiam ay sa maam. tëgg hmm. Thiawane Mar. waaw Guèye Mar Xaasim Seynabou tëgg Thiawane Mar baa ngi nii toog. Hmm. bon Babel c' est Sénégal. oui. miroiru Sénégal mooy Babel. Mhm. parce que Baabel gars yi dañ ko seetaan rek am ñoo xam ne dañoo focus ci les personnages. oui focus ci Nabou Gueye. Mhm. ci Asaf Xoromam. focus ci Bakir am mhm. ak ñu euh, mu mel ak Nabou Gueye. ñi focus ci Ibnu Thiam. parce que moom bu waxee compréhension bi mu am. ñi ci Papa Ndiouga. ndax euh, euh, exemple yi muy joxe ñi focus ci Xalil ndax ni mu bëggee jabaram. ñi focus ci Fa ndax ni mu fonkee séem ku nekk am ci ki nga focus. mais les gens devaient se poser cette question. laquelle mooy thèmes yi nga xamante ni moom lañ dugal biir Babel. ko mhm. expliquer. y en plusieurs. Mhm. am na ñoo xam ne nag topp nañ scénario bi. am na ñoo xam ne nag topp nañ personnage yi. Mhm. am na ñoo xam ne topp nañ décor bi. parce que boo xoolee l'histoire de Jojo. oui Sadikh. Awa Cheikh c'est une histoire. Khady Thiam Tidiane Ousseynou c'est une histoire Khady Thiam Laye Pène c'est une histoire mhm. Nabou Gueye Marème Thiam c'est mhm. une histoire euh, Nabou Gueye Bakir Ina Diawara euh, euh, Ina Lawbe Ina Lawbe c'est c'est une histoire Ibnou Thiam Ibnou Thiam Bambi c'est histoire la Bambi Khalil histoire histoire la kon dugg ngeen kër yi laal fu ne indi ko waaw parce que boo xoolee au début euh, dans la famille Babel de Ndiouga Thiam on se sentait fier d'être ñeeño bala may sax boo xam ne ñeeño ñoom bala may sax rek lañ gëm mhm. on se posait la question boo leen xoolee am na benn épisode boo xam ni on se on se posait la question mais bi leen waxee ne joojo mboow la sant léegi nit ñi di soog a comprendre na ñeeño bala may sax la mhm. Mhm. mais Ndiouga moom dafa dem aji màkka foofu la lépp changé waaw parce que aji na màkka armal na gis na tubaab bi indo bi ah naar bi sénégalais bi togolais bi nigérian bi ñëpp dañoo armal sol lu weex mhm. nekk ci kaaba gi laa il a compris que ni ñu ñëpp ci yàlla lañ jóge mhm. dafa la ñuy delloo moo tax moom bi mu ñëwee nangu na may doomam guerre démystifier affaire de caste mhm. boobu nag Babel nag mu ngi commencé jël nag beneen tournure bu ko woon les sénégalais ne même bu fekkee ne on est fier d'être ñeeñoo même bu fekkee ne suñ biir rek lañ bëgg a sëy tëjuñu suñ bunt pour kii que ce soit oui te. seetaanal di nga gis leneen leneen luy wane ne ah ñooñu bala may sey ubbi nañ seen bunt pour keneen ak keneen ak keneen du lu ñuy wax na mm-hmm. waaw li ngeen di gëstu la. Mm-hmm. seetaanal ko seen bopp gis ko. Mm-hmm. Euh, jàngat bi ma ciy taxaw tuuti dama ciy taxaw si sa rôle léeg-léeg euh, nit dina juddu doon mag ci kër wala mu doon raq ci kër am nu ko suñu borom jaglalee waaye léeg-léeg dañuy gis xeebeel. wala ñu gis ignorance ci lan amul alal xëyut demut ci sa rôle lan nga mën a jàngale foofu. non sama rôle lay Sénégalais dañoo jàpp ne Ibnou Thiam amul dañoo jàpp ne ci Thiam liggéeyul. Hmm. Ibnou moo ngi liggéey. ok Ibnou c'est professeur de philosophe boo leen seetaanee film bi da ngeen gis ne la plupart dem naa ci ay séminaire voyagé naa mais tey série mën nañ programme ne dinañ am ay. classe yoo xamante ni dinañ ko wane après par la suite ñu gis ne doole bi mu am. tam ñu dem ci loolu mu am lu mu wàññi ñu ellipse loolu. ellipse nag may boo defee cinéma nga koy xam. bien sûr mais da dégg ne le gars c'est un professeur de philo. mu ngi dem ay ay ay ay séminaire pourtant mënoon nañu wane séminaire bi mu nekkoon mais loolu ellipse nañ ko mais xam nañ ne. Ah. dem na séminaire. Ibnu am na xaalis. moo tax bi mu demee ba sonn ci baam bi. laaj na papaam héritage am. ak moom li mu am pour mu jënd oto jënd appartement. <laughs> loolu maa ngi koy soog a gis. waaw comprendre nga et donc Ibnou li tax euh, waa kër gi mënuñu ko comprendre mooy man fi may waxee lañ ma dul déggee. Hmm. ñoom fi ñuy waxee dinaa leen dégg. man su ma leen tontee duñ ma dégg te ñoom bu ñu demee. waaw wër la ñëw waaw la soog a comprendre ne Ibnou jaaroon na fi soit nag ñu wax ko soit ñu bañ ko wax et man kese. maa nekk doom boo xamante ni kër njuga ci am. Ah. maay tenir tête njuga. Ah. parce que su ma waxee lu ma war a wax. Mhm. ma ne ko li ma wax nanguwu ma ko. am na ci kër yëpp <laughs> am na ñoo xamante ne moom buñ jaax na ci paa moom la ñu yóbbu. <laughs> waaw dem nañ ba bu ñuy dem di waxtaani sax bëggatuñ ma yóbbu parce que xam nañ ne bu ma demee la ma war a wax. Mhm. <laughs> waaw dañ koy jàppee lu ëpp. waaw te dëgg laay wax mooy euh, sequence bi may waxee ne xale bi dañ koy jënd. parce que man enveloppe laa gis ñu joxe ko muy xaalis. waaw ñu wax may man leen noonu ñun dañoo ñëw jënd si. parce que xaalis lañ joxe. effectivement boo xoolee. ni mu demee dañoo jënd. dañoo jënd parce que ñoo ngi doon waxaale. waaw may bi li nga koy may li nga koy lii. waaw mais au fil da nga xam ne lii jaay la. <laughs> c'est vrai. boo fa deful dara doo fa jëlee dara. dëgg la. Euh, tu as raison. anticonformiste la ci famille bi bokkuma ak ñoom gis-gis bokkuma ak ñoom bëgg-bëgg. et les gens dañ doon laajte li tax Ibnu takkul jabar wala amul jabar ma leeralaat ko tey. Mhm. mooy que j'ai remarqué ne Bakir Thiam am na jabar mais jabaram respecté wu ko. Mhm. j'ai remarqué que Sadikh am na jabar daa jéng ñaar la am. jéng ci benn bi benn bi toppatoowu ko. Khalil mhm. mujjee ñëw nekk suñu rakk am jabar sax divorcé na fi. waa léegi man mi nga xam ne je suis un philosophe. nga xam ne j'aime que ma liberté amul dara lu ma mën a tënk man parce que je dois être libre. Mm-hmm. je me suis dit jarul may am jabar parce que ñii bu fekkee ne seen jabar yi ñu am nii la ñuy dundee ak ñoom kon man su ma takkee jabar c'est la même chose vingt-deux heures ñëpp tëdd waaw <laughs> question boobu laa doon laajte bu ma dugal ci ma naanum soow la <laughs> moo tax gars yi tëdd vingt-deux heures waaw mm-hmm. <laughs> waaw moo ngi noonu mm-hmm. Ibnu Ibnu daal mooy ngi noonu Ibnu daal mu ngi noonu personnage la boo xamante ni nag bon c'était un personnage risqué un personnage boo xamante ni euh, ça demande beaucoup de technicité et un difficile. Mm-hmm. soit da koy réussir gars yi bëgg ko ñàkk réussir gars yi bannir la. Mm-hmm. donc du ma ne réussir naa ko damay wax ne les sénégalais l'ont adopté ñoo ko bëgg. Mm-hmm. bëgg le personnage de Ibnou Thiam. et ma ñuy ci remercier parce que tey su ma su ma su ma génnee ñu naan ma Ibnou. chéri Bambi. waaw wala ñu may wax. Ibnou Thiam am la logique. logique ñoom la les sénégalais. Mhm. parce que mënoon naa ko wax du leen neex. Mhm. mënoon naa di génn du leen intéressé. mais alhamdulilahi rabil alamin bi mu leen neexee et je merci yéen waa Sénégal. Mhm. <laughs> waaw macha allah ci loolu waaye ci leneen loo xamante ne saa su ne rek ñu bëri dañu ko ci nemmeeku ndax demoon nañ ba benn jamono wala ñu toll foo xamante ne jàpp nañ ni ndaw ñu bëri wala nit bu xasee ba am soxna rek euh, kilifa boppam la. waajuram dañuy démissionné si moom waaye jàngal nga neen même boo dee am ay njaboot sa waajur dund mooy kilifa kilifa dafa war a uuf njabootam ci le cas de Père Ndiouga. waaw mais Père Ndiouga li mu def mooy li nga xamante ni tey moo dëgëral suñ sëy yaay ñun. Mm-hmm. suñ sëy yaay li ko dëgëral mooy li Père Ndiouga doon wane parce que da doon wane waat ne Sénégal toll nañ ci benn période boo xamante ni dañoo war a ñagaat. la famille. Mhm. dañoo war a ñagaat famille bi. parents yu bëri dañoo démissionné. waaw non démissionné wuñ. Mhm. fi mi toll la. parce que kenn du jur sa doom di démissionné. Mhm. juste nag di nga am peut-être lu la ci dul neex. wala nga ciy gis loo xamante ni franchement boo sañoon du demee noonu. nga ciy reyante nga dem ba sa xol am fu mu egg dootoo mën a jël yenn décision yi parce que da nga naan voilà quoi. mais parents yi démissionné wuñu. ñu suñoo démissionné. c'est juste bi. moo soppeeku. moo changé. Mm-hmm. ba nit ñi di am beneen comportement boo xamante ne koy am envers leurs parents. ñu mm-hmm. ko doon wane ne njaboot soo bëggee ñu doon benn. Mm-hmm. soo buggee ñu bokk benn gis-gis soo bëggee ñu bokk benn dund dund benn dund ba pare bëggante. nii ngay def di jël les décisions di taxaw seen kanam. mais du ñàkk ci biir famille bi da ngay gis kenn koo xamante ni mooy ki nga xamante ni moom mën a remplacer kooku ngay dénk lépp moom ngay sàll te loolu am na ci famille Mm-hmm. koo xamante ni moom la paa bi gën a dégganteel moom la paa bi di wax lépp moom la paa bi di waxtaanal bu naree jàpp paa bi mu naan ko bàyyil mu bàyyi donc loolu rek lañ jóg a wanewaat. Mm-hmm. donc les parents nañ xool ci alaaji njuga bien vrai que ni njuga du mën a li mu def lépp baax na. Mm-hmm. parce que léeg-léeg mu dugg ci foo xamante ni ah ñu nag dañuy riposter man ba may may baam bi dem na ko comme laajoo ma sama avis. bëgguma te bu fekkee ne ci suñu. culture. Mhm. ci suñu aada ci nit ñi yare sa papa boo waxee waaw nga war a wax. bien sûr waaye man léeg-léeg léeg damay tënku ci alxuraan parce que alxuraan dalay wax ne euh, bu buñ la waxee dara. Mhm. te mu nekk ci alxuraan. te say kilifa wax la ko da nga koy def par la force mais bu fekkee ne nag ñoom lan lay wax nekkul ci alxuraan ci bakkan dong la ne da ngay def xulul xaq waroo kaanu ngay mhm. def dëgg rek. da ngay def dëgg moom loolu laa gëm. waaw mhm. man laa gëm. gëm boobu nga ci am. waaw macha loolu tamit aussi lu am solo la. waaye ci euh, taxaw tuuti rek laataa ñuy gën a avancé ngeen mhm. dëgmal événement boo xamante ni yaakaar naa ni sénégalais yu bëree bëri ñu ngi koy waaj fële sa grand théâtre muy le 22. ay le 22 mën a xaaraat. <laughs> mën a <laughs> waaw tàkkusaanu Babel. waaw fel musa def musta egg. waaw fan yii day am xuloo yii day am. waaw yii am yaakaar mu yegg. senegal yëpp nee nañ. <laughs> takkusaan bu baabel waa kër ëttu baabel musa def. Eh. du egg. Nabou Guèye dina ci indi xëpp ci suuf wala mu def ci lu ko waaye ñu leen di wax ni. Eh. le 22. mooy takkusaanu baabel bi nga xamante ni. Hmm. day egg ci jàmm ak hmm. salaam. neex. Hmm. ba pare li ci gën a neex mooy. en direct la koy sénégalais di seetaan ak les acteurs. ok ñu nekk sur scène. waaw ñoom ñu toog di ñu seetaan. théâtre sur scène ngeen indiwaat. bon ni ma ko mën a expliquer mooy takku takkusaanu Baabel gis nga ni mu daan demee ci série bi. waaw loolu la ni mayaat. waaye la cay nekk ci biir nag. waaw du ma ko nettali kenn. damay bàyyi. y a beaucoup de surprises. wupp oh. son et lumière. oui. décor bu doy waar. ngeen gis loo xamante ni c'est la première fois au Sénégal. Mm-hmm. maison de production def ko. def saison ba mu jeex. Mhm. ne dernier épisode saison bi dama koy yóbbu ci benn environnement boo xamante ni j'invite tous les sénégalais jun j'invite tout le monde à ce que ñu ñëw ànd ko ak ñoom vivre ndoo ko loolu mun naa wax ne rek. waaw clap de fin boo xamante ni les sénégalais dañ koy ànd ak les acteurs de euh, Babel. Mhm. ak waa Mburodi. ñu defandoo ko ensemble applaudirandoo tout le monde. loolu laa tuddee man clap de fin. série Babel. le 22. Mm-hmm. Mm-hmm. may invité tous les sénégalais. Mm-hmm. di leen wax ne rek sur invitation la nag. dina am plateforme bi nga xamante ni Marodi dina ko lancé. oui ngeen dem yéen ñëpp ngeen inscrit ci plateforme bi ngeen am seen i billets ñëw sañse ba jekk. ñëw toog Papa Ndiouga. waaw Sadikh Thiam. Hmm. Bakir Thiam Nabou Guèye Khalil Fabintou Leila ñëw bëggal leen man Ibnu Thiam. ma taxaw ci ginnaaw sol sama taux Pedro. di wër logique di wër <laughs> <laughs> lay demee. <laughs> macha allah kon ñu ngi ci woo Sénégalais yëpp vingt 22 incha allah fële ca Grand Théâtre mu doon bës boo xamante ni képp kuy soppee Babel wala ngay soppee acteur wala actrice boo xamante ne rek mi ngi ci Babel ñu ngi la fay woo tax ah, euh, dana xumb dana dagan noonu la ko Ibnu wootee ci tàggatoo rôle bi nga xamante ni Nabou Guèye mu ngi koy incarné. Mm-hmm. ñu gis ni waaw. kër goo dem du ñàkk sarax taxawaayam ci biir série bi lan nga ñu si mën a jox tuuti moom en tant que. ak partage ci Sénégal yi. lu nit ñu comprendre une bonne personne boo xamante ni tax na lu bëri sax ñu koy mën a lijjanti ci kër gi. oui parce que moom mu ruube man la maanaam mu ruube ba am li mu bëgg wala mu ñàkk ko wëriwaat leneen lu mu bëgg lu mu war a tegaat pour am ko. maanaam hmm. da ngay dégg gars yi naan pour la première fois ñu gis seytaane bu ñu bëgg. non nabu du seytaane jëwul sax rolu seytaane moom jëw la ak moom mën di toll jëw la ci digg bi lay jaar waaw dina la wax lim la bëgg a wax nga toog dina la ko wax mhm. nekkoo fi dina la ko wax li mu bëgg moom mhm. maanaam du hypocrite voilà ko c'est une bonne boo xamante ni mhm. parce que nag nit pour man noonu nga war a mel waroo nekk nit boo xamante ni da ngay mat di ëf boo boo boo wéetee ak nit waxal ko lu baax. Mm-hmm. Euh, waxal ko lu baax. Mm-hmm. bu la wanee ginnaaw nga waxal ko lu bon. moom nga toog nga ñàkk toog lim lu bëgg a wax la lay wax. nabu nag ruube maan boobu noonu mu indi dafa neex parce que kër bu amee ruube maan. kër gi ah. day daal di xumb parce que day am ay clans. mais pas ay clans yu negatif mais mm-hmm. clans yu positif parce que boo xoolee ñun suñu biir kër. mën nañ xuloo suñu biir. mais boo xuloo keneen ñun ñëpp ñu dugg ci. dëgg la waaw ah, parce que dañoo bëggante. Mm-hmm. mais loolu la njuga réussir dafa réussir ba famem bëggante moom ñun moom nañ rayante suñu biir waaye keneen du ñëw rayante ak ñun parce que mhm. ñëpp ciy dugg dañuy sot waaw ñun loolu loolu loolu la ñu loolu la ñu jóge yaree. Mm. ma bu baax a baax a baax au moom sama sister Nabou Guèye dama ko mer sax waaye waruma ko woon nuyu sax. parce que dafa am yu may def mais dama ko wax dara. ak ak doy waar xam nga si dara. bon <laughs> Nabou Guèye sikk sama sama xarit la mais dafa mais maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ah, di ko profité rek di ko baaluwaale àq ci tabaski bi. it Ibnu mm. xam naa euh, guddi na comme ni nga ko waxee waxtaan bi neex na waaye lépp rek mbégte lañ ci am bu baax a baax a baax ci disponibilité bi nga xamante ni may nga ñu ko ngir ñu toog jàkkaarloo ak sénégalais xam naa du mu la teelu yàgg rek. ah normal parce que ñun ak yéen. li ñuy wax yéen a koy génne te yéen da ngeen bëgg ñuy wax pour ngeen mën a génne. oui ndax buñ génnee sénégalais yi xamaat ñu. te boo leen génnee gars yi seetaan. donc ñoo mën a ànd ñun ñëpp ko dëgg la dëgg la donc euh, wax ji du bari. dañuy waxaat waa Sénégal baalaat nañ leen ax rek. di leen baaluwaat ax. di remercier tout le monde. parce que damay bañ. à mhm. chaque à chaque fois mooy toog ci télé yi. di tudd sama yaay ak sama papa yi. <laughs> waaye mais sama yaay yooyu yëpp. Mhm. ak sama papa yooyu yëpp xam nañ fi mu toll ci ñoom ak fi ma leen def. Mhm. kenn ku ma ci fàtte ci li nga ma defal. ci li ma jàppale ci durant bi nga xamante ni ñuy xamante. ñu ànd. fàttewuma ci lenn. macha te ñoo ngi ñaan rek. Euh, donte mënuñu leen fay. yàlla deful ñu ay xéwal. Mm-hmm. bu ci nekk rek la ñu warlante ak yow ñu ñëw def ko. amiin waay amiin waaw ndax moo ngi ci suñu xel. Mm-hmm. ba pare toog ci suñu xol. Mm-hmm. ndax ñoom suñuy fierté lañ euh, euh, te dañ leen di sago waaw ñoom ñoom xam nañ. jarul tey mu leen di tudd. yàlla leen yàlla guddal seen fan. amiin amiin bàyyi leen fii ñu gën fee yàgg. waaw di di di di nuyu sam papa Ndiaga nga xamante ni sama gaañ la c'est c'est un papa modèle. Ah. et donc euh, yàlla dogal maak moom li ñuy gisee du bari. ndeysaan waaw ndax. temps mhm. mais ma xam rek moom fi ma toll ci moom. ndeysaan ndax bu ñu déggantee téléphone façon bi muy waxee ak man. Mhm. damay sentir ne c'est un papa boo xamante ni. il veut me dire que ni mon fils me manque. ndeysaan mais papa sachez que je t'aime très bien. sachez que je t'aime très fort. Mhm. yaay yaay yaay wuy jur wi sama yaay Ndeye Badiane ñu koy sant bu baax a baax. Euh, di sant sama jabar ji nga xamante ni. wala mm. sama soxna si nga xamante ni moo nekk ci kër gi. di ma toppatoo. kenn xamul ma dara bu ma amee sombi kenn xamul mm-hmm. su ma amee ndox kase kenn xamul mm-hmm. su ma rey ginaar wala ma rey xar kenn xamul ma koy euh, ma koy ma koy ma koy kiwal bu baax mm. voilà sama séeréer melul ni Nabou Guèye non moo raw Nabou Gueye. non non non non Nabou Gueye benn benn Sénégal kooku amul amul amul numéro moo raw Nabou Gueye ak sama ginnaaw tool be ne toog. moom nga xam ne ndeysaan sama xarit la. madame daf may fii rek moom yow. madame daf may fii rek moom. non non non garaaw garaaw. ay damaa bëri ay ay. ay ay ginnaaw tool ay ginnaaw tool ay ñoom jay naa. ah ginnaaw ah, tool yi rek. Ah, ak sama sama sama moom cousin mi samay cousin lañ. macha allah ñoom Cheikh ñoom Ousseynou. Mm-hmm. Euh, ñoom Assane voilà ñoom Kia. madame Badji ñoom day faatu. Mm-hmm. ak sama yaay seen bu caam bi nekk fi bu baax. bu day Paa Badji. Mm-hmm. maa lay nuyu ñoom ñëpp di leen gërëm. parce que ay goro lañ yoo xamante ni sonal luñ la ci dara. ndeysaan et puis duñ la indil benn problème. maanaam euh, doo toog mukk ñu woo la na la. suñu doom nee na lii naqari na ko wala lii neex na ko. Mm-hmm. et donc saa su ne yow boo fa taxawee rek ci ay gërëm la ñuy wax sama goro bu baax bi sama goro bu yar bi sama goro bu baax bi sama goro bu mm-hmm. yar bi na yàlla ni ci jàmm rek la ñuy déggante. en tout cas toute ma famille maa lay sama rakk yu góor yi. Mm-hmm. sama nijaay kooku moom il faut ma tudd ko sama nijaay Jibril Ndaw sama xarit la. macha allah et puis c'est c'est un gars boo xamante ni. je l'estime beaucoup. parce que. nit la boo xamante ni nitu kase la te daf baax mhm. tonton jibi un grand coucou di la wax déwénati yi. Mhm. baal maax baal naa la yàlla na yàlla boole baal. amiin amiin waaw fii laa la def. Mhm. sama gaañ la. sa waay la waaw noonu la demee. ndeysaan <laughs> ça fait plaisir si jotaay bi kontaan nañ bu baax a baax a baax. jërëjëf. Mhm. jërëjëf heure boo leen ko soxlaa rek. jeex na maa ngi nii. bu leen neexee sax le 22. ma yore leen micro bi. non le 22 dañuy ñëwaat biir grand théâtre de baat ko ba mu mokk. maa ngi di jox di daje rendez vous le 22 fële mu nekk benn événement boo xamante ni son et lumière. Mm-hmm. bu nar a doy waar boo xamante ni musul am Sénégal. Mm-hmm. Euh, kon 17h. waaw 17 ku fa ñëw jàpp naa ne doo am place kon gars yi 14 commencé leen génn seen i kër sangu leen 9h ngeen sol seen i yére. 13 mm-hmm. fekk leen fa. ngeen toog gàddu seen sandwich coxom coxom yi. 17h ñu ne tëll ñëw toj grand théâtre mu neex. le de dina xumb dina dagan dina neex. Ibou Thiam la logique. nee na bés bu logique noonu. le 22 rek nga ko ci am nuyu naa la dégg <laughs> macha allah maam ci jotaay bu am solo bi nga xamante ne seqoon nañu ko ak moom à travers Sénégal Buzz 221 muy lu am solo ci li nga xamante ni moo di waxtaan bi ndax lépp rek doon na njëriñ ndax saa su ne dañuy bëgg bu ñu amee ak ñoom jotaay mu doon njëriñ ci askan wi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel di kontaan bu baax a baax baax ci jotaay bi waaye di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.